Youssou. waaw mooy mooy comme lu ma doon wax rek tey jii nii lépp lépp c'est la base tu te mooy lu ma wax tey jii il faut qu'on soit beaucoup plus professionnel te tey mënuñu ñëw toog fii nii ne non fédération bu liggéey ñu wala kii parce que quand am na évolution bu bëri bu am. man depuis ba ma nekkee équipe nationale ba tey. Mm-hmm. Mm-hmm. tey jii lu ñuy ñaan mooy affaire bi di gën a dem ci kanam. ñu am benn groupe bu solide bu bu fonde boo xamante ne tey jii nii dinañ xam ni presque di nga xam ne tey jii nii bu bu dara xewul équipe bi nii moom moo nar a dem Afrobasket pour deux mille vingt cinq. tu vois je pense que tey jii loolu benn c'est quelque chose boo xamante ne man ça me tient à cœur parce que tey mën naa wax ni man génération bu ma bu ma ñëwandool ñu si ñu si bëri nekkatuñu sax si équipe bi peut-être. mën naa ne man kese sax maa si ñëw constamment góor gi day am say euh, tournoi yoo xam ne du ko mën a jouer par rapport ak euh, statut NBA bi mais genre euh, je pense que tey jii jot na ak joueurs yi fi jaar yëpp jot nañu am benn équipe bu solide boo xamante ne ni on va le préparer def seen bopp yi dorénavant que ni on part pour gagner la Coupe d'Afrique l'Afrobasket en 2025 te dañu war a objectif en fait te objectif bi mooy comme lu ko suppa bi ngay wax du si du nekk si wax rek. Mm-hmm. wala dara foog foog ñu liggéey foog ñu foog ñu génnee les moyens technique genre moyens yu mu mënti nekk rek genre foog ñu génnee ko teg ko si taable bi te arrêté wax bi mooy comme lay mooy wax man tout le temps loolu laax booy ma ne leen benn affaire am na mooy que ni. on n'a pas gagné depuis 2017 mais on est vraiment la présidente de l'Afrique quoi si basket bi. parce que bu ñu demee yeneen jours yi genre da ngay gis ni ñoom seen bopp dañuy dañ dañuy fan sénégalais parce que niveau bu ñuy joué ñoom ñu si bëri joué wuñu ko quand tu la Tunisie même équipe bi dañ yor ba daaw même équipe bi dañ yor ça fait je sais pas plus de dix ans même mm-hmm. équipe bi dañ yor mm-hmm. genre ñoom ñooy. dem coupe du genre ñoom ñooy dem coupe du monde ñooy gagné coupe d'Afrique yi dañu am base tu vois genre daaw nañ soog a commencé ren ren nii ba ñu ñëwee nii si Nigéria bi laa leen soo a gis sax ñu am jour yu bees yu bëri mais mhm. tout le temps tu voyais les mêmes têtes depuis plus de dix ans te je pense que loolu lu leen jàppale la si lu bëri pour ñu mën a di gagner ils ont gagné la coupe l'Afrobasket combien de fois trois fois d'affilée ou quelque chose donc. Mhm. Euh, loolu yëpp genre mooy base bi te tey jii nii lu ñu bëgg rek mooy ñëpp ñu ñëpp ñu déggoo nekk benn jéem a comme ni ñu koy waxee rek ñu mànkoo wuti ndam bi parce que c'est quelque chose je pense qui qui tient les Sénégalais